min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim raditu anil mawla taxalal la si rabba fu aadi wa ahnaani wa akrim bi rabba mbokkee salaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuy te di leen siyaare tey ñu ngi fii ci daarul muxti ci dëkk bu màgg bu sell bi nga xam ne Serigne Touba moo joxe woon tur wi ñu sancoon ko ci ndigalam mu joxoon ko rakkam ja waaye taalibeem ba di boroom daarul muxti 1912 mu yebal bind ab bataaxel jox ko sëriñ Amsatu Jaxate na ko na ko tuddee daarul muxti tur woowu nag na xam ne foraatuwuma ko ñu dikk ci dëkk bi nga xam ne nag danu koy màggal fii di ci fàttaliku daje bi nga xam ne daje woon na ko ginnaaw bi sëriñ bi demee ci géej gi daje gi mujje dajewaat ak borom daarul muxti te mbégte mooma doonoon mbégte mu sedd xol wax nañ ne mbégte mu jégg dayo la ba borom daaru bi mu ko joxee loxo sax ñu bare bare wax na ne dafa génne xéewal ndax mbég ki mu bisaat sëriñ sëriñ bi bégaat ci moom ñu toog na ak sëriñ Cheikh Astou fay mi nga xam ne ku nekk xam na ko di xalifab sëriñ Modou Habib mi nga xam ne mooy waajuram mooy borom daarul muxti moom it mu doon koo xamante ni tubarfakalla yoon wi soxla na ko waaye daaru muxti soxla na ko ci taarix ak ci histoire ak mën a leeral ci sëriñ bi bu baax a baax jaxasoo woon ak njabootu sëñ Touba gépp ak mag ñi nga xam ne fekke woon na sëñ bi dundoon ak moom ñu yar ko jàngal ko ba tey ji nag ñu bëgg a taatan ay kàddu ci bis bi nga xam ne kan mooy borom daaru waaye gis na ne tamit njàmbaaruk borom daaru war nañ ko waxtaane ak itteem ci ni mu ittewoo woon ak ni nga xam ne ni la ko sëriñ bi wóoloo woon muy amaana bi kon sëñ bi bismillah jërëjëf bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammad nabi rahma maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ne amuñu lu bis bi nit kenn ku ne nag am nga ñaari bis bisum naqar ak bisum bànneex bu ci dikk ci yow nag ku ca dikk ameel nga ko bor boo xam ne mënatoo koo fay kon ñi ñëw ñëpp noo ngi leen di sant di leen gërëm di xam ne dese lu ñu dara ndax nun amuñu lu dul bis bi na lu dul sëñ bi Euh, bala maa tàmbali wax ji nag damay wax li sidna Abubakar waxoon ci Omar dañ naa Omar nii Omar nii Omar nii Abubakar ni leen eh, Omar Omar Mohamed bala maa tàmbali wax ji damay wax loolu ne Ceerno Ceerno sëñ Touba lu mu nekk ci moom sëñ Touba koo def ci moom euh, xam ne bis bii bisu mbégte la ndax sëñ Fallou dafa waxoon ne bi nga xamante ni bii yàlla dogal na dañ ko daan def bis bi mu fi jógee. nga xam ne dañu sëñ Fallou woonu ka woo sëñ Moura Balla carrière mu ànd ak rakkam yëpp ñu dem wujji bi mu dikkee sëñ Moura Balla ci taalibe ga mu ne màggalug daaru gi de dafa jub. dañuy dem ci sëñ Fallou nag laaj ko ndigal. mu ne nañ ko bàyyi nu bàyyi ko. bu ne màggali leen te dellusi ci carrière bi nu màggali dellusi ci carrière bi. bu ko randalee yëpp nu def noonu. sëñ Modou Bala daal di jóg ànd ak sëñ Mahmoudan ak man mii nu dikk ci sañ Fallu bi nu dikkee sëñ Fallu dal ciy def ay waxtaan daan bis bu ngeen ko jàppoon ñu ne ko bis bi nga xam ne bii fi ci ci ci la fi jógee woon mu ne boobu bis lu bisu bànneex hmm. am na bis boo xam ne bànneex la ci Cerno bànneex la ci sëñ Tuubaa kon bànneex la ci yoonu murit hmm. ñu ne ko ban bis la mu ne bis bi sëñ Tuubaa dajee ak Cerno Ndar ñu yóbbu woon sëñ Tuubaa juróom-yetti at yu manqué tuuti ci ay weer. ba di ko delloo si mun a ceeru naan daje ndar mu dajeeg moom saafonte moom nuyu ko sëñ Fallu ne bis boobee nag mooy bisu bànneex. ndax di sëñ Tuubaa wuti woon am na ko. li mu dénkoon ceerno dara yàquwu ci. kon nag nañ ko def bis boobu ci la ñu jàppee bis bii sëñ Abdou Khoudoss daane wax ne sëñ Abdou laat mii fi nekk bu ko randaloon it ñu randal ko. bu newoon nañ ko bàyyi it ñu bàyyi ko. ba ti bisub tey jii sëñ Abbas li mu wax bu sëñ Muntaxa ne woon bu ñu ko def di su ko def hmm. bu ko randaloo ni ñu randal ko hmm. ndax Ceerno loolu la leen santoon na ngeen fonk taalibe gi te jàpp sëriñ bi te bu leen ko booleeg dara hmm. ndax ne na leen koo nar a def aw lay ëllëg waroo ko booleek dara waroo ko da nga ko war a jàpp te déglu ko te te te wéy ci ay ndigalam loolu la leen digaloon ba tax na ñoom foofu lañ teg seen tànk te duñu ko teggi mukk bis bii nag bis la boo xam ne bii bis bu màgg la ndax ñoom ñaar ñooñu foofu ñu gisee woon kenn ku ne am mbégte kii yóbbu woon nañ ko ñu jàpp ñëpp jàpp ne day des ci day du dellu si bokk yi ci bari sax dañoo jàppandoon ne Thierno ne sëñ Touba du dellu si ba tax na wax nañ Thierno ba tàyyi tasaareel ba mu dellusee mu fekk ko fi li ñuy li mu dem lépp it Thierno musta am dëkk musta am kër fu mu sanc rek kër sëñ Touba la fay la waa kër sëñ Touba ñaa fay ne mu dem ca gannaaw wut ñetti néegam toog fa ba bi mu dikkee Daaru Marnaan euh, euh, ñu ñu ñu ruur tool yi pël yi ruur tool yi rey dongo yi layoog moom yey ko mu ne nag ruur sama tool yi rey sama dongo yi layoog man yey ma damay jóge Bawol fa la gàddaay nag moom dikk xaban fekk mu xat mu jóge fa dikk euh, dikk gaawaan fekk mu xat mu dem Pire pir googee la ko sëñ bi yónnee bi lettre ne ko demal Mbàkke Kajoor soo demee nga toog fa mu dikk Mbàkke Kajoor toog fi Mbàkke Kajoor googu la ko sëñ bi bindab lettre ca Ceyeen jox ko sëñ Amsatu Jaxate ne ko na na xëy suba teel dox ba yoor yoor jot bu dang mu wàcc foofee julli ñaari rakka euh, tudde ko daarul moo tudde naa ko daarul mooti lettre baa ngi fii ak man ne ko nag lu la fekkut day lu ma mënut day lu ma mënut loolu la wax sëñ Ibra Faati mu soog a sanc fekk bu ñu ko masaan wutal lu dëkk wutali mu ne leen du ma wut dëkk wut dara aw ma ndigal waaw ndax bu ma sëñ bi ne doo doo doo dëkk doo am kërit du ko am li ma digg rek laay def ba yàlla dogal mu digal ko fii mu gor ko 1912 waaw euh, ñu ñu ñu ñu gor ko 1912 mu sanc ko sëñ bi tudde ko daarul mooti mu ne fi bi ñuy gor ci biir gor bi borom borom daaru nee na donga yi ah dana mujj day matt gën fee jafe ndox te booba ñu ngi ci diggu gor bi am na ci dongo yu ko jóg ne oh ma jóg man dem ci liggéey bi dafa dox ñaari jéego mu woolu ko mu ñëw mu ne ko dégg naa li nga wax de waaye maag Mor jëbu mii de duñ ko fekke waaye yow danga ko fekke muy dem di dem ba forage yi bënn bi forage yi bënnee doom ji xëccal kobro bi na yëkkati ko ne ko baay boo jógee jógeeti ci wana bi rek kii ngay biis mu jëm nii nga jàpp ci tëjaat mu ne ko lii laa doon nekk du ma ci jàppaat weer xam naa loolu baraxlu la ko wax koor ga mu faatu ne ko lii la ma ci yàlla doon négloo waaw toog na it ne leen lépp lu am ndar de dana ñëw fii waaw lépp loo xam ne am na ndar dana leen fekk fii ci Daaru Muxti waaw ndax sëñ Tuubaa ko ne sëñ Tuubaa ko ne loolu la fi fekku day lu ma mënut te sëñ bi tëliwul dara loolu la xam mooy bi nga xam ne 1418 mu ngi koy sancloo yetti këri Touba yooyu moom Thierno ci boppam fekk nañ ko fa ne ko 1418 euh, euh, la nekkee guerre bi am sàkkite weñ mun tam fekk sëñ Touba da ko ne suuf si féete woon kaw na féete suuf na ko def it sàkkite weñ mu ne ñii day xamuñu ma xamuñu it sëñ Touba sëñ Touba du sant nit lu mënul mukk ci àddina lu mu santaan santaane rek luñ man la man mii du ma sant lu ma mënut ndax xam na ma dafa toog foofu ba yàgg tubaabu moral porom fekk ko fa ci temps de guerre bi ne ko am naa fa junni seng ak juróomi téeméer ñëwul ma jaay la ko waaye awma lu ko indi bàyyi sëriñ saaxo nee na ma ci ci ñi daan ànd ak moom la boobu waxan waxambaane wul dëgër la moom moor caw ak sëñ moor xarit si la ñooñu ñëpp dañ ñoo dem njaarim mm-hmm. ak waa bayti jax bàyyi Abdoulaye Ka mii wàkk ndax ci juróom-ñaar yi jëkk fanaan fii la bokk Ceerno lu yaakaar moom la jébbalu muritoo Mbàkke Kajoor bi ñu jógee Mbàkke Kajoor di ñëw ci juróom-ñaar yi jëkk fanaan fii la bokk ba ñu demee ba ak waa kànk yëpp ak waa bayti ja ba ñu demee bañ àggee njaarim am na ci ñoo xam ne wenn seng lañ yono am ci ñoo xam ne dañoo topp ci nit ñi naa leen dimbale leen ma ma barkeelu ci ba mu def la ko sëñ Tuubaa waxoon lépp mu ne kii li ma leen waxoon kii xaw ma xamul sëñ bi mm-hmm. ndax sëñ bi lu mu sant nit lu mu mën la du santaane kenn du santaane lu kenn mënu maa ca nag man mii kooku mooy sëñ bi dafa di fawoon tànkam nag teg ko ci ak taalibe soxlawul lenn bëggul lenn lu mu lëggee day wax moomuma ko sëñ Tuubaa ko moom donc yiy bay tool yi sax da leen di wax na ngeen di jàpp ndax dugub ji kat dugub bi sëriñ Tuubaa bu waxtu jotee jàpp leen te julli ah soog a dellu ci waar wi ndax su ngeen ko defut itam dugub ji mën naa wax sëriñ bi wax ko kon loolu kooku mooy sëñ Ibra Fati kon bu amee bis bis bi bisub yoon wépp waaw bisub yoon wépp bisub jullit yépp bi mu ko sancee it dafa wax ne sama dëkk bi duma ma ko atteloob tubaab duma ma ko atteloob chef de canton maa koy attel sans bopp sëñ ci dëkk bi defar jàkka ji moo ci jiite fajar ba jiite fi gaye ba safaa witar soo ko dellu ci biir kër gi loolu la nekkee woon bi mu demee ba nga xamante ni bii Euh, li ko sëñ Abdou Khoudous jiite ak sëñ Abdou Rahman tànkam ma doon metti mu ne euh, mu ne euh, ngóor mu ne waa ji demal wool ma Abdou mu ñëw jiite ma timis mu ne ko Abdou moo ci woo mu ne ko moo jëkk a jot ba mu génnee mu yem ci sëñ Abdou Khoudous mu ñëw jiite ko timis Abdou Rahman jiite ko gaay loolu la nekkee woon taalibe gi nag moom ndaw yi dañuy juuyoo am na benn bis téeméeri bërigo lañ bojj def ko ci téeméeri mbaam ak téeméeri yet téeméeri ponkal jiital ko ba njaarim ñu wàcc ko ndax dafa wax ne man moomuma dara lépp sëñ tubaa ko moom dongo moom dongo yi moom lay liggéeyal waaw lu dul bi nga xamante ni bii yàlla dogal na sëriñ bi jóge fi ñu ñëw ba ñu dikkee gouverneur senegal dafa wax ne laajuma kenn Ibra Faty lay laaj te booba ñëpp a ngi fi hmm. ne ko kuy wutaatu sëñ tubaa sëñ Maxtaar Samba ci boppam nee na bi Ceerno jógee damaa defee ne keneen la dafa teg loxoom ci loxol sëñ Modou Moustapha ne ko kii mooy wutaatu sëñ Touba sëñ Modou Moustapha ne ko damaa defe ne dangay def ni sëñ bi defoon noonu def na nga defoon mu ne ko déedéet sëñ Touba bu nekkee ci kaw suuf maay wutaatam waaye bu fi jógee nag bàyyi taaw bu toll na yow yaa koy wuutu man nag maa ngi dellu Daaru Muxti dootu mën kenn asalaamaaleykum waaye dana la dénk lenn nag mu ne ko ah, mu ne ko kërug Daaru Xulus gii bu leen ko jaay ndax ku ko ku ko moom fukki weer ak yaar dootoo laaj kenn dimbal ku ko woor yor ku ko moom ñaar fukki weer ak yent ku la neex mën ko ko dimbale mm-hmm. lii la ko lii leen wax keroog waaw naka bu ñu demee ba wax koo jaay nag yónneel ci man ndaw waaye war leen ko war koo jaay da nga ko bàyyi ndax moom Tuubaa duggoo Daaru Xudus mm-hmm. loolu du moom lii la ko wax keroog ndax ku dikk tu ku dikk ci këru daaru bayti gii ci daaru xudus ku fi dikk da nga fekk sëñ Tuubaa boo ko fekk boo fi tegee tuuti mu fekk la te ba mu siyaaree yee moom ba mu delloo Tuubaa ginnaaw sëñ bi ba dikkee ci daaru xudus la yem buntu bayti boobee lañ ko laal euh, romb jaan gi mu toog fa ba mu gontee di ñibbi sëñ Matar Samba da ko ne gaa yi de dañuy jaaxle lool mu ne ko ah mu ne ko dañoo ñëw Tuubaa te de mënu ci barab bi mu ne ko fuy barab bi mu ne ko fee ñu denc sëñ bi mu ne ko foofu ñu denc sëñ bi da ko wattandiku sëñ Tuubaa bi mu fi jógee léegi ñeneen na ko yor de ñu bokkut ak ko yoroon waaw moo tax ma yem ci këru daaru xudus gi dana ma fekk wala ma fekk ko fi ñeneen na ko yor ñu bokkut ak ñu ko yor ñu ko yoroon te booba demul ci barab bi daaru xudus rek la yem waaw te kenn mënul ne maa jëkk ceerno ci sëñ Tuubaa kenn mënul ne sëñ Tuubaa wax na ma lu mu waxul ceerno kenn mënul ne defal na ma lu mu defalul ceerno loolu kenn mënu ko wax waaw Thierno lépp taalibe la boo xam ne bii léppam da koo joxe danaan wax naa taalibe day mel ni ab néew bu ñuy sang du ne jëkkal ragg bopp bi du ne wëlbatikul du ne ndox mi tàng na du ne ndox mi sedd na foo wëlbatiku rek mu jëm fa nee na noonu la ab taalibe di mel loolu la daan wax moom nag foofu la tegoon tànkam waaw ba noppi nag boole ko sariya ju mat sëkk waaw waaw ndax danoo toog ba yàgg sëñ Abdou Lahad ne sëñ Matar Sàmba lu Ceerno Gane Mahmadan laa bëgg nga wax ma ko lii nag bu ci wët parti ndax baax puso bu réer la mag mën na koo far gone mën na àggale jumaa ji ba ñu julli ko kon loolee nag ci la sëñ Abbas teg tànkam bi sëñ Seex Xaddi dikkee gis ngeen ni mu def dafa def yokk jumaa ji ba mu gën a yaatu mu def kër boroom daaru bi ba mu gën a baax kër borom daaru gi Cheikh Khady ko créé defar ko ba mu baax ne leen nag léegi kuy borom ku moom daaru rek yaa moom kër gi sëñ Abbas sooke cee dolli lii mu ci dolli dolli ci lii mu ci dolli ne lii sëñ Cheikh defoon fi lay tàmbalee jëm ca kanam sëñ Abbas dolli ci loolu wëlbati ku it wax ne duma def dara lu ma ànd ak yéen duma wax dara lu ma ànd ak yéen di ñaan sëñ Abbas it mu ñaan ci barke baayam bi na eh, eh, réew mi am jàmm amuk juboo jàmm rek sax fi di ko ñaanit mu ñaan nawet bii nu jëm yàlla barkeel ko moom mi na antum tasirona am nax nu saari woon na ngeen seere ne bayu leen man maay bay kon moom mi bay yàlla na nu bayal mbay mu naat mu baax mu bari te fegul nu ruur yépp fegul nu seytaane itam nag tesul fegul nu ak ñàkk ak ñu tuuti di sant nag sëriñ Muntaxa bu baax di sant sëriñ bi bu baax di sant porte-parole yoonu murid muy Cheikh Bass li mu war a def lépp ci bis bi def na ko porte parole yoon wee ndax ku nekk port parole Serigne Touba rek ay porte parole yoon waaw la Cheikh Mbay yaaram waxoon jigéenam ba dikk fa maa moom nu am dikk de ne ko may ma ndox ma naan daba mbay ne kooku euh, Asu Mbakke mayal sa bàyyi Cheikh Mbay ndox mu naan mu tax nga ndox mi dikk tàllal Cheikh Mbay seex Mbay ne ko noo sant mu ne ko Mbakke Cheikh mbay làmb poosam dindi téeméer na ko dama lay jéggulu diggante néeg bii nga jëlee ndox mi yót ma mooy lii tey kon nag nu itam loolu Cheikh Bass foofu la nekk ku yor porte parole yoon wi yaa yaa yor yoon wi mënoon na koo yorit yore ko Touba rek waaw yore ko Touba rek waaye yoon wépp la ko yoroon yoon wépp la ko yoroon ku ci soxla ci yoon wi mu def ko mu def ci la mu war a def lépp kon noo ngi koy séeréel sa Muntaxa ne ko sant nañ ko wala man bokk sant naa ko man nag dafa dul suuf lu ma waay defar waaw defar dama koy sant mu tëdd si kon moom it ñoo koy ñaanal mu gunge ko ba ca kanam ba li sëñ Mountakha bëgg a liggéey lépp mu liggéey ko di ñaanal it porte parole bi nekk fii ci Darou muti muy Bass Abdou Khoudoss taxaw na ko man daal maa ngi télé sama waa kër média bi bu xas nit bu ñu xeeb nit bu ñu xarab nit. li leen nit kiy jox yàlla ko ëppale fopp te moo ko joxe te su ngeen ko ko ñaanee mu may leen ko ci seen barkeem maam waaw ah. kon journaliste yi ni ngeen leen wattandiku wattandiku média bi bu leen sànni xeer kenn bu leen wax kenn dara wattandiku war sab yi wattandiku yooyu yëpp yooyu ay caaxaan képp la ak indi yabeel ak xeeblu sa waajur waaw ah. doomi diwoo fi wax diw nangam doomi diwoo fi wax ministre nangam xeeblu nga sa waajur ah bu sa sa waajur wax ñu ne moo waajur waa ca ànd tuumal nga ko itam kon na ngeen wattandiku loolu doom yi ma jur nag man laa ko sañ digal maa ngi leen koy digal waaw. réserve yu jëm ci dëkk bi yoo xam ne mooy yoon yi mooy goudron yi ci biir dëkk bi loolu wax nañ ko boroom réew mi ba nee na jël na ci not nee na it fas na ko yéenee def waaye suñu bëgg-bëgg dëgg-dëgg daal mooy yoon yi ci biir dëkk bi waaw waa intérieur bi. amoon problème mu école yi nga xam ne ab lycée amee su demee ba war a tamit dañuy jaaxle ndax da koy yóbbu Mbàkke Bawol man sama gone yëpp Mbàkke Bawol laa ne yóbbu woon jàll ñenn ñi Kaolack ba ñu am bac soo ko dem université loolu wadd ko dindi moo fi indi université moo fi indi lycée bi ne na ngeen ko tuddee maam Thierno Birahim danaa ko tabax ba mu àgg maa koy inauguré si loolu wàdd ko fi indi def ko fi Abdou jouf moo fi indi haute tension bi mooy indi haute tension bi indi hopital bi indi téléphone automatique bi ndax amuñu woon téléphone automatique indi courant bi itam courant bi moo ko indi amuñu woon courant bu bu tàkk dëkk bi lëndëm tërëj loolu juufa ko dindi Macky Sall yi lii rek lañ koy ñaan yoon yi ci biir dëkk bi daal mooy sunu kii mooy sunu mooy mooy mooy sunu soxla bu wér a wér a wér soo xam ne si waxoon na ne nag dana ko def ak li mu digg woon ci kër sëñ Touba gi kër sëñ borom daaru gi li mu waxoon ne këri diine yi bu ñu naa def daan woon daaru mus danaa ko defar moom it ni ma ko defaree këri diine yi loolu it ñu ngi ko ci séntu entrepreneur bi ñëw na ba ne dimanche la koy tàmbali loolu la wax waaw mu ne entrepreneur bi ñëw ne ba ne kër kër borom daaru gi li ci Macky Sall war a def altine la koy tàmbali te bu ko tàmbalee neen du ko bàyyi te agul ku lay defaral sa dëkku maam nag doo mën lu dul gërëm ko te sant ko man de gërëm naa ko sant naa ko ci li muy bëgg a def ci daaru defagu ko de waaye gërëm naa ko sant naa ko ci yéene ji rek yàlla nag mooy sottal mbir waaw ndox mi it noonu benn forage bi moo ko fi def ab Abdou Diouf fi def ñaar Wade def fi benn mu def fi benn muy quatre quatre forage forage yi nag mi ngi dox bu baax a baax waaye euh, am am jàppal ju ne dafa am koy jàpp forage bi nu jox ndox mi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Birima Mangara moo moo moo ko def moo fi ñëw ndox amul ñu laaj ko ko mu wax ko mu ne bu ma delloo day luy tax ndox mi dikk danaa ko def ba mu delloo moo ko def ba ndox maa ngi nii di dikk moo tax am kii bu ne am jàppal diw ngay wax waaw kon nag loolu moom lañ ci amul lu ñuy wax waaw marché bi bi fi euh, euh, Macky Sall ñëwee sëñ see xaddee ko ko wax ne ko damaa bëgg marché bi nga defaral ma ko ak yow nu yaari daxaar mun ne ko ñaar yëpp danaa ko def marché baa nga ne sanc nañu ko yoonu yaari daxaar def nañ ko rang-rang da ko ne woon godoron la makki nee na danaa ko def moo ko wax waaw lii mooy li nga xam ne daal moom lañ bëggoon ci dëkk bi ah ñu ngi koy def waaye nag lépp it noo ngi koy ñaan yàlla ndax yàlla yoru lépp suñ ko ko ñaanee nag loxol ku ko jaarale nu sant ko waaye moom mi diggee daal ne dana ko def noo koy sant ci diggee bi su ko àggalee nu gën koo sant su ko àggalee itam nu xam ne yàlla ko dugalut waaye du nu xas nit du nu sànni xeer ci nit ak alalam wala nit ak man manam wala nit ak xaralaam man lay bàyyi ak yàlla rek te ñaan yàlla te xam na yàlla mooy maye lépp ñoo ngi sant ñëpp di sant taalibe yi di leen ñaanal ñu maase ci liggéey ak jaamu yàlla ndax borom daaru mii de dane woon ku la mën di jur te jaamu woo yàlla bu nu taxawee yow mal xam da nga sa bopp su la àddina bépp doon jox te liggéey yooyu itam dañuy dañuy toog rek naa liñ ko doon jox fu mu dugg kon yoon wii la ñu tegoon ba tax mu gor ñeen fu kilomètres yi nga xam ne buggul woon kenn jëggaani suuf buggul woon kenn jëggaani ay tool buggul woon it nu xuloo ci ay tool kenn ku ne lañ la jox ci tool yi fi mu nekk mënoo koo bay da nga ciy bay des ci lépp la nga bayoon mboolem na ku ci sëtu kon wax dama leen ne woon borom daaru xalaatam rek jar na topp ko waaw waxuma la ak nag xam-xam bi waxuma la ak nag topp gi mu topp sëriñ Touba ba ba am ngërëmam wax naa la ko léegi naa naa la kenn mënul ne maa jëkk ceerno ci sëriñ Touba kenn mënul ne wax na ma lu mu ko waxut kenn mënul ne def naa man lu mu defut ak kooku kenn mënu ko ci yoon bi waaw loolee nag ci lañ fas yéene nekk di sant ñëpp di gërëm ñëpp.